mbay parce que xam naa ñu war a jël ñëpp kàddu bu defu ndànk heure dina jot te du nu àgg ndax professeur Abdou Aziz Kébé ngi fi docteur euh, Bachir ak maam alfa ah ngi wax bu baax dina xam Pape Makhtar nit ñëw dama bëggoon rek ma woo euh, Aziz Abdou Aziz waaw. Aziz. allo. allo Aziz. la béy El Hadj Abdoul Aziz. maa ngi lay dégg. maa ngi laa nuyu ak di la ziar. jërëjëf Mbaye. di nuyu bu baax. Sidi Boubacar Ibn Alaaji Mansour. sama doomu turandoo. xalif général wal Tijaani. di ko ñaanal gudd fan ak wér. naaw ya maam ya naaloon ak baay ya ak mag ya. yaa na nga yeggale naan yëpp. amiin. te naan sa naal bopp yeggale ko. amiin. di nuyu. Hadj Malick ibn Alhaji Abdoul Aziz mm-hmm. di ko jaar ak nuyu famille Cheikh Seydi Hadj Malick yëpp inauguration mosquée bi wax nañu ko ak nag di nuyu sëriñ Thierno Bachir Tall kooku nag mooy Cheikh Omar Fouti ñëpp xam na Alfayda moo yoroo fi mu jëlee tariqa bi ak doom moom ju baax bi Thierno Madani Abdoul Aziz ba may dugg ci waxtaan wi. Ah. Tony Mbaye Mawudo. Ah. soo tuddee Cheikh Sidi El Hadj Malick nee Modou Mbaye Mawudo. Mhm. sa baay Sidi Boubacar nee na góor gi Moussa ñoom ma doon imaam ni ko soo nekkee lépp lu Amadou Mbaye nekkee ak mu mënti nekkee ku ko gis daa gis Sidi El Hadj Malick amoon Mbaye nekk ci wetu ak ki xam ne mooy la 14 septembre mooy kan mooy ka ah Sidi Boubacar ni woon waaye maa sopp sama rakk ji soxna Astou Kane ni ko waaw ak sama papa lu tax nga sopp ko mun def lu Alaaji Maalik ci lépp muy Alaaji Abdoul Aziz yàlla yàlla yokk leeram Abdoul Aziz la béy lii ma yor la béy hmm. dix millions la hmm. famille Amadou Mbaye moomu dox dix millions ñu góor ña hmm. dix millions. waaw famille Amadou Mbaye moo. ñu hmm. góor ña. Hmm. ñu jigéen ña. Hmm. jarbaat ya. jabar ya. doo ko dajaloo ma léegi oto bi ma joxe ko. Abdoul Aziz. la béy. bala ma lay bàyyi. na ñu xam ni kër seeni maam ak seeni baay kër gi rek la ku ñu la Baba Diaw ku mel ne Pape Racine Sy di mbokk ci Cheikh Seydi El Hadji Malick Mamadou Ndiaye kooku rek kenn la ci man di président Rahma Arona Dia ñëpp xam nañu ko Tahirou Sarr wallahi moo la dàq way mimier su way mimier rek nga daanu ak kan ak Lamine Camara ak rakkam ju baax ji Khalifa Camara ak kan Moustapha Ndiaye moom ci boppam nag moo tax koo ka xam ni moo tax ñëpp bëgg jàng alquran Abdoulaye Dia Farba moom Seydi Hamza Seydi woon na ko wallahi yow sa dërën jaxasoo ak dërën Cheikh Seydi Alhaji Malick ndax doomu Mansour Mbaye mooy doomu mhm. kër Cheikh Seydi Alhaji Malick mooy kër bu rëy te Tiwaawan ku sopp rek Cheikh Seydi Alhaji ak ki xam ne boole woon nañu ko ci commission bi amoon ak Ibou Siya muy kan famille Alhaji Bass Mbengue ñu ngi leen di woo famille Alhaji Idrissa Gueye ñu ngi leen di woo famille nga xam ne moom léppam gannaaw yàlla ak yonent ba ak bàyyi ma ma saxin ak Xaadimu Rasuul Alxaaji Abdul Aziz la muy kan muy fami Alaaji di kan di maam Cheikh ak ak ay jigéen ak kan ki xam ni mooy fami moomi Kebe di jugee Kebe kenn du ko far ci lii lu tax ñu woo ñu moo ñu ku ñuy wax Mariam Jeng ko jur Mariam Jeng suñu bàjjen Asu Njaay ko jur suñu bàjjen Asu Njaay soxna mu sëñ ak di ah Ceerno Ba Maram Sall nga xam ni jolof yëpp dañuy wax ni ca kër ga la ñu jóg di fa dal ca mu ni damay fay Cheikh Seydi El Hadji Malick ñu dul tabax kër gu rëy ci Tiwaawan ak kan ak rabagam ju baax ji Sayer Sall pour naa woo ki xam ni Maxtaar Kebe xaritam soppeem ngir Alhaji Abdoul Aziz ñëw na léegi di ajara tuddee rawoon waaye maa ngi woo taalibe Sidi Boubacar bu mag bi bëgg loolu Cheikh Seydi El Hadji Malick di wax fu ñu toll waxu Sidi Boubacar ibnu Alhaji Mansour mooy kan mooy Aly Seynabou Touré du woo ajatu ay doom mooy kan mooy surtout surtout xadum ci Malick ak kan Mamour Thiaw wala Hadji Abdoulaye Suba assurance ak kan ah ki xam ne dégg ngeen ko Abdoulaye Ndiaye ngeen ko ak kan Makhtar Ndiaye El Amin nga xam ni moom képp Malick TV moo ko moom def ko dara nag du mu ko Cheikh Sidi Hadji Malick alors yëpp mu doon ko ci ak kan ak ki xam ne Cheikh Sidi Ahmed Tidiane bokk na photo ak baayam mu koy jaay ci réew mi di avocat bu jor jaan ak kan ak ratu Penda Diallo léppum kër Cheikh Sibal Hadj ma ak lii xabaar baayam Alhaji Abdoul Aziz di xaritam di soppeem ak kan ñi xam ñoom ñëpp ci dëgg-dëgg ñu ngi leen bintu xuma ñi xam maamam sëñ Abdou Diop dafa dégg Cheikh Sibal Hadj Malick jógee Saalum ñoom mu boole ko góor gi alxaaji Pèbre moo ko woo ak Sam ak di woo ca dëgg-dëgg am na ndaw Seck ak nag alxaaji daan Diop nga xam ne jëf na jëf lu rëy mooy lan mooy joxe cent millions ñu maa ko bëgg waaye arrêté wu ak kan ak Abdoulaye Sy Ndiaye xam ko dégg ak kan ak Maxtaar Cissé maa ngi koy gërëm ak Ibou Sylla waaye maa ngi lay yëgal ne ah Mbaye Diop nga xam ne sa ñun ñooñu ñëpp seen i maam ñun ñëpp seen i baay ak Sidi Boubacar seen i baay ak El Hadj Mansour seen i baay ak El Hadj Abdou seen i baay ak El Hadj waaye Sidi Boubacar man mu fekk woon ah. bari ci kër gi ndax ñi nga dañ leen jënd ñi nga dañ leen jënd sa maam Cheikh Sidi Hadj Malick bëgg na sa baay bi mu tudd Sidi Boubacar bëgg na El Hadj Mansour bëgg na El Hadj Abdou bëgg na El Hadj Abdou bëgg na Sidi Jamil bëgg na Seydi Mouhamed Mansour borom daara bi sama dégg la ci Ahmed Tidiane Al Maktoum dégg ki xam ni lu ngay wax na ko ci jumaa ji di Seydi Abdoul Al Amin moom itam dégg na di wax nag Makhtar Ndiaye Al Amin moom itam télévision bi doyoon ko dara mu tur rek di jot li wax Seydi Ibou Bakar ak di ma bii mu ñëw yaa ngi jël si ko ca kanam tuuti ma waxaat waaw la béy dafa nekk dafa am ku nekk ci bëgg a ji a a yéeg léegi joxe li mu yor. muy Aziz Aly Ndiaye. ma bëgg nga ma tuuti rek téyel ma tuuti mu yéeg. joxe li muy joxe. Abdou Aziz Aly Ndiaye Gambie joxe na cent millions. wa wa waa maa ngi lay déglu. Ndiaye. Aziz Aziz lay. waaw Aziz ñëw rek Aziz Aziz a egsi na. Aziz Aly Ndiaye ñëw salaam wa rahmatulah. Abdou Aziz jàkkaarloo.